waa en tant que coordinatrice du réseau des femmes Benno Bokk Yaakaar département de Mbacké kenn bëggul Dieng. moom mi ak ñi mu àndal si kuréel gii di réseau des femmes de l'APR du département de Mbacké danoo ñëw ngir leeral. di indi benn leeral ci benn déclaration boo xam ne benn femme bu tudd soxna Fatim Mbacké Marème daam daf koo wax daf koo def ci presse bi wax ne moom dafa àndoon président Macky Sall ci tournée bi mu doon def Taïf te jamono yooyu président Cissé Lô moo doon coordonné parti bi. jamono yooyu benn jigéen bu daan ànd ak euh, président Macky Sall bu sant weesu weesuwul soxna maam xari Mbacke si Moustapha Bassirou ak soxna Ami Mbacke ñaar ñu ñoo daan ay Mbacke Mbacke yoo xam ne dañ doon ànd ak président ci jamono yooyu pour mu leer. soxna maam Faty Mbacke mare madame waxoon ni ci sortie bi mu amaloon bi muy dem di ànd ak Madické Niang ngir bàyyi parti bi di APR te mu jàppoon ni fi la nekkoon tam militante de première heure la woon ne sax 2012 firnde la si woon ndaxte campagne électorale ba fi amoon demoon na sa Taïf ànd ak président Moustapha siselo Lo ba otoom yàqu si woon ba tey soxna kenn bëggul Jean mi jiite réseau des femmes de l'APR du département de Mbacke faxas wax junu mel kon président une fois encore ko fekkoon ñi ngi nii toog foofa la ko fekkee ne dafa am soxlaam di ko dox wala mu dawal otoom leneen tax ko jóg mais àndul ak président su fekkee ne li ñuy wax nag daf koy wet dina ñëw wax ban leader la àndaloon ci yooyu jamono ndax ñun jamono yooyu ñu ngi foon te mosuñu ko cee gis président Cissé Lô mu doon coordonné parti jamono yooyu newu fa. Madické Niang moom mi candidat à la présidentielle mi décroché soxna si moom mu wuti leneen lu mu wax wala mu dem indi yeneen preuve waaye lii moom tegul fenn. soxna yii nag gis ñi jamono ji APR gàcce ngalaama sunu sukkandikoo si ñoom ñu ni kat seen parti bi amul tànku ginnaaw ndax jàpp nañu ni képp ku ñu doon tudd si département bi nga doon jigéen di yëngu si wàllu politique dañu ràññee la ànd nga ak ñoom. tey lañ gën a yaatal kilifa yaa ngi ñëw di jàppale waa parti bi ñoom soxna maam xari ñëw nañ ñoom soxna asuburi ñëw nañ ñoom soxna Njóoba Mbàkke ñëw nañ ak ñoom honorable ay Gueye ak ñoom ñëpp ñëw nañ tey la parti bi gën a yaatu ñun ñaa ngi ñëw ñu ngi jàppale président ndax liggéeyam bu wér bu liggéey si permanence bu APR bu département de Mbacké lañ doon amal seen ndaje bi ngir nag wax li nekk seen kanam si wàllu politique ak yan yoon lañ koy jaaree si lañu profité we tontu soxna maam Fatou Mbacké ma daam mi ni dafa bàyyi APR dem si Madické Niang waa réseau des femmes du département de Mbacké bokk si parti bi di APR ne nag jóg nañu tem ngir nag politique ndaxte li des seen diggante ak élection présidentielle yi pour na nattee si ñaari weer ak genn wàll la tollu